Euh, transhumance taxul nga hmm nga dem taxul nga yobbu la weddi laaj ba muy dem euh, voilà <laughs> dem def transhumance taxul nga nga nga yóbbaale nga yóbbaale ay nit ku weddi euh, Idrissa bon li xale di wax ne li sama benn doom naan ñoom moomee fan xam naa ñoom fan moo tax xëy mu demee nii mais blague à part mhm. Bon, j'ai une amie, elle me dit que pourquoi tu félicites pas ces gars-là. Malin, je ne vais pas les féliciter parce que c'est une élection, je peux dire que Boudoul Volid, ils ont triché. Mm-hmm. Parce que à deux, à euh, le conseil constitutionnel mhm. ñu wax la ne la mën dissoudre assemblée nationale ils ont eu 65 jours je pense yoo xam mhm. ne xamoon ils vont dissoudre l'Assemblée nationale mhm. ñu téye soixante cinq jours ils ont di liggéey li ñuy liggéey ci ba quinze jours de si ñu quoi wax opposition bi pour ñu être sur le terrain bien vrai que opposition bi quand même on devait s'attendre que <laughs> on devait s'y attendre que ñoom bu nguur gi automatiquement euh, ils vont procéder à la dissolution Mhm. de l'Assemblée nationale. Mhm. Mais on pensait pas peut-être que dina dina dina mhm. il mais y a eu de la triche à euh, ils avaient 65 jours pour double le définir def défini. stratégie et ils ont laissé euh, à l'opposition 15 euh, jours pour aller en élection et faire ce qu'ils ce qu'ils avaient à faire je pense que là il y a eu de la triche et de la malhonnêteté voilà ah c'est une victoire je du je pense pas que mon que peut-être dina ci am du ah, euh, parce que du ñak ñoo xamné ne euh, am seeni nit yo xamné déggal na mais plutôt li leen may victoire bi ba mhm. opposition surtout sam sa le pur dedans Barthélémy médias dedans Thierno beaucoup euh, comment il s'appelle encore mhm. Fall Pape Djibril Fall euh, ils ont une part de responsabilité sur leur défaite. Hein. Ah bon Oui. Euh, leur, leur, plus grande erreur, mhm. c'est d'avoir euh, accompagné Ousmane Sonko tout au long de ces, de ces, de ces mensonges, de ces dérives, de de de ce tout ce tralala bi nga xam mhm. euh, depuis 2020 2024 2024 jusqu'à nos jours. Mhm. parce qu'ils ont accompagné Ousmane Sonko dans le mensonge aussi parce que y a un du cerf on serre. Ousmane Sonko doon wax dara mhm. maintenant quand le médias vient avec tous ces jeunes là qui sont derrière lui tous ces gens là tous ces sénégalais là. mais quand il sort il sort cela. Hein, il va retourner bredouille. le pire. oui dafa mës a am électorat boppam pur xaw pur la xawma ma pur euh. dafa mës am électorat mhm. le pur mhm. accompagne Ousmane Sonko bu ñuy génnaat bu pur di génnaat pour bàyyi Ousmane Sonko ils vont y laisser des plumes nit ñi ñu dugalaale foofu mhm. seen électorat ba fay des Ousmane Sonko c'est ça son fort. Mhm. il m'a au Sénégalais. Mhm. di la wax lo xamné yow mi jeune bi li nga bëgg a dégg fekk né mag mi conscient xam li mu xam wala jeune bi jeunesse bi conscient xam na né ki li wax dara du ci dëgg mënu et ils ont accompagné Ousmane Sonko dans leur mensonge. Mhm. on a entendu le leader de de du PUR. mu m'a que Ousmane Sonko da doon tappale da doon jouer film kon y a un problème. en tant que marabout. en tant que sérigne, en tant que nini, ñi jox la ci et tu accompagne Ousmane Sonko dans toutes ces bêtises qu'il faisait. Mm. C'est ça qui les a coûté ces élections-là. Mm-hmm. ñu bañ ko ñu nangu ko loolu nous leen coûté élection yi ce euh, n'est bon c'est pas même pas la constance en fait mm-hmm. xëy bon bi ñuy ànd ak moom man mm-hmm. attends attends gis nga sëñ soxna si nit bu nekkul ci dëgg dafa yomba xam nit bu nekkul ci dëgg dafa yomba xam dossier da nga koy liir nga jàngat ko soo Sonko dafa dem Sweet Beauté waru fa woon a dem dafa dem foo xam ne waxuma la leader sax waaye ku utul dara cim réew sax waroo faa dem mhm. rawatina nga yor say jaboot mhm. say jabar muurul la leen ibaadu mhm. tombeek mu tombee ak Covid loolu waroon na tax ñu bañ a ànd ak Ousmane Sonko jàppale ko Ousmane Sonko ne naa fa dindiwaat ne deew ma fa ñëw ne Macky Sall moo ma comploté on lui demande mu leeral ñu loolu ba xam Macky Sall ko ah complot loolu ah. que li indi 94 84 94 ou 84 xale de il faut que mu leeral ñu ci complot les Mamou Diallo et ainsi de suite. Mhm. Parce que le dossier de Agissar mhm. ne fait pas partie de l'amnésie. Mhm. Il faut que les Sénégalais aient l'eau bingo ko pour corrupteur de la jeunesse l'olo beaucoup tu dossier bi comment Ousmane Sonko a fait tout ce tapalé qu'il faisait mais attends moi je je suis allé jusqu'à dire que même c'est une association de malfaiteurs

on l'a traité de tous les noms nag naan ko dafa ñàkk faydaak dafa bëggé dafa bëgg a giiru mbagg non boy and ak nit mhm. coalition sab sagaru couleur bu ndaw da caa wara nek fay ci voilà même si c'est le passé mhm. le port drapeau mhm. yow sa couleur daf ci excuse moi daf ci wara nek voilà bon et Khalifa et tout, c'est ça qui a coûté tout cela. Mhm. Quand il est venu au dialogue, on l'a traité de tous les noms. Dialogue Bob, j'étais là-bas, il qui le droit au palais. Mhm. Mais il, a, il avait le droit de venir coalition c'était pour les législatives vous mhm. présidentielle demain. ku mais ça les a coûté beaucoup de choses Retombé yoy y tay parce qu'ils ont accompagné Ousmane Sonko dans le mensonge dans le faux et maintenant avec leur jeunes yi nga xamné ils étaient là-bas. Mhm. encore une fois ko xam pur. Mhm. xam na ne am électoral. ku am PD ko xam PDS xam dafa am électoral ñoom PDS li dab. c'est mhm. accompagnement ak Ousmane Sonko en 2024. ci élection yi. pour xeex ak Amadou Ba. parce que méré won nañu Amadou Ba. alors qu'il devait réfléchir. et gënon na mature que lolu lolu nak mo daalaat sen kaw. man ci sama gis-gis ak ñoo xamné bokku bokk naa gis-gis. suñu gis-gis moy que ñom lolu mo leen dab. and ba ñoo ak Ousmane Sonko du génn bi de. Mhm. du génn bi parce que génn bi ñu naan waaw ku àndoon Ousmane Sonko doo am dara non non. le fait que ñu àndoon ak àndoon ak moom. Mhm. pas que ñu génn. le fait que ànd bi existé woon rek loolu déjà da leen ni euh, def préjudice boo xam ne doo xam nu muy tollu immense. Mhm. parce que déjà tu rentres avec tes jeunes.